ay ci mu ngoog mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ngeen di wéy di ci ànd ak les programmes de la 7TV télé bi ñu niru ba noppi di ñu dajale utale yenekaay yi ànd ceeg Pape euh, Malick Thiam Pape Malick maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aïcha bu baax. ma bàyyi la nga daal di ñuy wax li nga xamante ni loolee rek la ëpp yenekaay yi xëy fësal tey. yi lu ñu xëy fësal Aïcha bokk na si. ginnaaw bu nga xamante ni politique euh, ak dàq gu ñu dàq élection yi jigéen ñi. ñoom ñoo ndax ndaxte le 8 mars ñu ne euh, bés bi nga xamante ni jagleel nañ ko jigéen ñi ci àdduna bi yépp euh, ñu koy euh, ñu koy gàmmal ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo jigéen ñi am na ay xeex yu bëri yoo xamante ni ñoom dañu ko doon def am na yoo xamante ni gañe nañu ko am na yoo xamante ne des na di wax ne jigéen ñi ñoom ñoom ñoo waaye loolu la Sud Quotidien wax Euh, jigéen ñi tamit euh, moom la Walf Walf l'Observateur euh, ñu ne jigéen ñi nekk surtout ci àll bi topp nag juróomi jigéen yoo xamante ne ci àll bi lañ nekk di fa liggéeyee yor ay seeni taxawaay wuute ku nekk ñu jagleel la ko ci ni nga xamante ni fànn bi nga nekk loolu l'Observateur moom moo ci ñëwaat. ñi nga xamante ne ñooy journal Le Bës bi ñoom jigéen ñi nga xamante ne ci euh, di tas xibaar ci média yi la ñu nekk euh, bés bi jour ñoom loolu la ñu wax euh, ki nga xamante ne moom moo di may mu noon doo wala ab saar ñoom ñu dogale leen def leen liñ leen di def ñu mujj jugaat taxawaat ki nga xamante ne moom mooy Oumy Régina Sambou moom tamit beneen histoire la nettali Aminata Diop Annette Mbaye Derneville wala sax Nafissatou Diouf ñoom ñëpp ci journal bi euh, loolu leen leen euh, jagleel su saa ñëwaat tamit ci euh, beneen jigéen bu tudd Fatimata Mbengue mu bokk Pastef nekkoon ñu tëjoon ko kaso bu yàggul loolu moom tamit jigéen jagleel nañ ko ci bis boobu wante Louga daanaka moom moo moom moo moom moo addu lépp ndaxte ñoom gouvernance jigéen moo fa nekk police jigéen moo fa nekk li nga xamante ne moo di gendarmerie tamit jigéen moo fa nekk post ba sax ak inspection d'académie ay ñoom ñëpp ay jigéen lañ ñoom suuf saa ñëwaat ci ñooñu ñëpp di leen sargal euh, bu baax a baax L'As Quotidien aussi ñëwaat na ci ki nga xamante ni moom mooy docteur Marie Xemes Ngom euh, defal ko euh, xamlee ko bu baax a baax a baax ñu ne moom jigéen la ci jigéen ñi ci xarañam ak ci xam-xamam loolu journal L'As Quotidien moom mooy ci ñëwaat Zahra Iyane Thiam ci journal Les les échos euh, ñu ne euh, moom euh, daf lu muy xalaat rek moom lay wax am lenn lu nga xamante ni moom lay nëbb mu ne amul benn jafe-jafe ki nga xamante ni moo di président Macky Sall dafa dëggu loolu moom moo koy jiital fu nekk Zahra Iyane Thiam tamit ci journal L'Info Euh, ci loolu la ñëwaat tamit jagleel ko ko ci lu yaatu yaatu journal bi tamit mu ngi wax ci ki nga xamante ne moom mooy professeur Amsatou Sow Sidibé nekk professeur euh, droit agrégé d'ailleurs jigéen bu njëkk bu agrégé droit fii ci Sénégal mu ne loi yi nga xamante ne moo soxla élection bi dañ ko war a soppi loolu euh, journal L'Info moom moo ci ñëwaat wante enquête quotidienne ginnaaw bu mu waxee ci ñeenti jigéen yu nga xamante ne ñoom marqué nañu 8 mars bi jagleel nañu ko seen portrait Aminata Ndour Faye mu ngi ñëwaat ci élection présidentielle yi ak ni nga xamante ne noonu lañ koy euh, doxalee ñu ni campagne électorale bi fukki ñaar fukki mooy de euh, lu yées ñaar fukki bés rek euh, lay doon wante ñi nga xamante ni ñooy candidats yi nga xam ne daanaka ñu ñu bëri xamuñu leen ñoom la ñu gën a la ñu gën a lésé loolu enquete moom moo ko wax le quotidien ñëwaat tamit ci élection présidentielle yu 24 mars mu ni fukki fan ak juróom rek la candidat yi am ngir euh, wane seen programme jëm ci campagne électorale bi campagne électorale bi nag tey suba ci wi lay tàmbale conseil constitutionnel ak président ma ki Sall werante bi dakk na journal bi ñëwaat euh, di sargal ki nga xamante ne moom mooy directrice 7TV di Maïmouna Ndour Faye euh, Ndeye Tafa Socé moom moom moo ko moom moo ko moom moo ko def Vox yi tamit ñëwaat na ci lu nga xamante ne moom mooy présidentielle yu 2024 mu ne fukki fan ak juróom juróom-benn euh, ñi nga xamante ni ñoo juróom-ñaari sages yi ñoom euh, jëm euh, wax nañ lu Macky Sall wax élection yi fixé nañ ko 24 mars bii ubbi nañu campagne yi CNRA mu ngi artu ñi nga xamante ni ñoo di média yi ak ñeneen ñi loolu le Vox Populi wax journal Le Soleil tamit ñu wàll ci élection présidentielle yi ak juróom-ñaari sages yu nekk conseil constitutionnel ak président Macky Sall ñoom déggoo nañ ci kaddu ndaxte lu ñu wax mooy élection présidentielle yi ci 2024 ci 24 mars 2024 bii lañ koy amale libération duñ ci wax ne Macky xaatim na décret conseil constitutionnel euh, ñoom tofu nañ ci ginnaaw président Macky Sall ci boobu le campagne électorale bi nag samdi bii lay tijji bu wi jotee euh, di dem euh, ci 9 mars ñu koy jeexal vendredi 22 mars bu minuit jotee. journal bi tamit mu ngi wax ci li nga xam moo xewoon tribunal benn lakk moom moo xewoon tribunal ci benn ci benn salle. Euh, boo xamante ni benn waaye bu nekk tribunal moo fa doon lakk ay beñe euh, mu mujj taal ay mu mujj jël fa euh, taal fa taal bu bu mag a mag a mag loolu libération mu mujj waat ñu jeexal ak ki nga xamante ni ñoom ñoo di ñi nga xam ne ñoom journal quotidien sportif stade ñëwaat ci matchu diggante Olympique de Marseille ak ak villa Villarreal ñu ne Ismaïla Sarr ak Iliman ñoom tas nañu tas tasaar ñi nga xamante ni ñoo di Euh, Villarreal ndaxte Olympique de Marseille euh, ñeenti match yi ñoom ñu dugal fukki but ak juróom benn donc Jean-Louis Gasset bu mu ñëwee ci équipe ba léegi équipe bi dafa dafa xarañ loolu loolu journal euh, Stade Le Quotidien Le Soleil moom moo ko wax incha allah moo gënoon fës ci ajuma ji 8 mars bu ñuy jagleel famille atum 2024 am na solo mbokk yi alors Pape Malick dama lay bàyyi nga enchaîner ak li nga xamante ni moo di la revue euh, politico-économique léegi léegi bu baax bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.